retournement de situation ngay am foofu ndaxte fii mu toll nii daanaka président Macky Sall ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi koy topp daanaka am na mbégte mu bari ak émission boo xam ni jàpp na leen ñoom ñii di sénégalais yi nga xam ni jàppoon nañ ni président daanaka day yëkkatiw ay nekk président boo koy xool ci kaw ba ci suuf jàmm ak salaam la méngoo loolee moom la def démb wala bërki démb ci taxaw bi nga xam ne taxaw na ko ca buntu pale daal di jàkkaarloog li nga xam ni mooy sénégalais yooyu nga xam ne jàpp na ni moom di président moo leen jiite ca jiitewu leen lu dul fu leen neex daal di yóbbu leen waaye da leen jiite ci li nga xam ne mooy sàmm ak sàmm seen jàmm ak salaam loolee la fétal wane ko waaye nag ñooñee daanaka dañu mujj alawte ku ko topp ci li nga xam ni mooy buntu barrière yi pare de la république di ko wax ni moom mii di président daanaka li nga def ñàkk nan koo rafetlu ndax ñun dañu bëgg nga continuer jiite waat Sénégal meilleur Sénégal goo xam ni daanaka da nga koy dàbbari ñu lu neex waaye moom mii di président ba mu jëlee kàddu ga la mu xamle mooy man damay organiser ay élection ba pare du ma ca bokk te it xam naa taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci man waaye loolee nag bokkut ak mébét bi nga xam ne tànn naa ko te it ma jàpp ni mébét boobee mooy mébét bu baax ci Sénégal gi nga xam ne bi muy ñëw 2012 euh, euh, foofee ci président de la république euh, daanaka Sénégal la ko gars yi joxoon goo xam ne Sénégal gu mucc ayib la kon moom moomee bu dem ba fay jóge bëgg a bàyyi Sénégal gu mucc ayib loolee delloo na ndaa la ba ca ndaa la loolee tamit ñëpp ci Sénégal fi mu toll nii daan daanaka jàmm mi ngi ci commencé ruuruwaat beneen bi ci des mooy gars yi di ko ko ñaan ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko mi nga xam ne nekk na ci diggante ay xat-xat moom moomee de la république ko neexee mu ëpp loxoom xool li nga xam ne loolu la ko mën a dimbalee ci diggante ak moom ndax yoon mën naa am teg na ko loxo waaye yoon woowee moom mii di président moo jiite lépp bu ko neexoon gaa ñi atte président Ousmane Sonko ba pare moom it mu taxaw daal di koy balancer maanaam jéggal ko ci li nga xam ne loolee daanaka moom moomee keneen ko ko doon toppee ndax lépp ci biir Sénégal la ñu ngi ñaan jàmmi Sénégal di ñaan président mu def loole